asalaamaaleykum mbokki tur fi si mbokki ni seetaan ci seen biir émission Naar Góor tous les mardis à partir de 11h euh, ci télévision Futurs Médias mbokki tey waat naa leen nuyuwaat nañ leen tey fii ci euh, hippodrome El Hadj Ndiome Kor euh, ci tey quatrième journée. tey quatrième journée mu am tey fii ci hippodrome El Hadj Ndiome Kor Diop mu nekk course bu am am solo tey ndaxte tey kenn ku ne xam na ni ñii ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ni moom la ñu nekk. Euh, ku gis tey ni ma solo ak mooy bi ma sol Babacar maar xam ne tey nag dañuy supporter suñu Lions yi kenn ku ne xam na ni démb barki démb démb ci ajuma ji dañu gagné victoire bu amaam solo digganteem ak Cameroun mu nekk match bu amaam solo vraiment wane ni Lions yi fa ñu nekkoon démb ak barki démb ba léegi ñu nga fa. te it euh, Sénégal am na ci ñoom yaakaar li leen di avancé nag mooy ñun Sénégal ñu jug taxu nekk benn jàppale leen nekk seen ginnaaw supporter leen moo tax tey ñu solo nii. Euh, tey émission naal gu spécial jàppale gaynde yi la ah supporter Lions yi moo waral tey ñu solo ni ñu solo tey nag mbokk yi ñu ngi fi am cinq catégories euh, comme niñ ko fa falaw di amee saa su ne rek ci podom laaj ñoom ko job noonu lañ ko amee tey am nañ fi première course bi plus de trois ans yi ñoom ñoo koy daw deuxième course bi plus de deux ans troisième course groupe 3 quatrième course groupe 2 cinquième course bi groupe 1 ñoom ñoo koy daw a a baax nag ñiy rawatina ku ci mel ni Pape Mour Fall directeur emploi nit ku baax koo xam si ne saa su ne day seetaan émission naar góor waaye ku mel ni ki nga xamante ni mooy Macky Chanel du suñu xarit du suñu lépp moom saa su ne du du tardé benn yoon émission naar góor waaye ki nga xamante ne mooy Ismaïla Bass moom tamit di suñu xarit di kenn ci ñun moom tamit saa su ne émission naar góor du ko tardé benn yoon waaye di gërëm mbokki turfis yi nag turfis yëpp kenn ku ne day woote fu ne ci émission naar góor ni ñu ko safoon ni ñu ko falee rawatina tous les mardis ñoom ñëpp dañuy toog di ko seetaan bu nekk lu ama am solo nekk émission boo xamante ne fas rek ci lay dox ci naaru góor rek lay dox loolu moo tax ñu tuddee ko naaru góor kon mbokk yi tey ñi ngi fii ci quatrième journée ci podrome yaay ñoom ko jóbu Thiès kaay ñu àndanteeg Babacar Mar tey nag spécial gaynde ñooy euh, jàppaleel yooyu ba ñu jël coupe bi indiwaat ko loolu la ñu ñaan yàlla président Macky Sall ànd ak coupe bi ànd ak moom génnaale ak moom am deux étoiles loolu nag ñi ngi ko koy ñaan ndaxte vraiment yeeyoo na ko ah yeeyoo na ñu ñu neexale ko sax coupe mu doog ko demaat vraiment ndaxte liggéey na Sénégal liggéey bu rafet boo xam xamante ne loolu président Macky Sall yeeyoo na ko ñu ngi ko koy ñaan yàlla na ko yàlla defal ci barke Serigne Touba ñu àndandoo mbokk yi ci biir course quatrième journée fii ci hippodrome El Hadj Ndiome ko Diop seen mbokk seen xam ma Diome peex émission naar góor ay ca ñu dem ci course bi na neex na tàng na mit jàngeen jëf xale yi xol sedd tinna daal gis naa seen taxawaay yi dem leen bul leen ragal kër kër liggéey di ko nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal tey gunge leen kontaan naa yee ndaw yu góor yeeg ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ ñaaw yéen liggéeyam soobu wane na ni bu doon xare du ngeen ma sa daw kon yéen di dimbale leen war na yomb ndax toogu leen xaar. ete gars yi jug nañu gars yi jug nañu trois ans yi ñoo nekk noonu jug nañu ñu ngi nekk vingt partants war na ci distance mille six cent cinquante mètres première course euh, première course ci quatrième journée saison course hippique 2023 2024 ñoo nekk noonu plus de trois ans ñoom ñoo koy daw Talibé Diack Sao mu ñëw troisième position gars yi def nañu benn tànk dundu nekk na ci kanam dundu nekk na ci kanam Baye Cheikh gars yi jur ñoo ñëw trois ans yi. moo job gars yi jóg nañu dundu la ñu door mu génn dundu bu PAM Moussa Thiam moom la ñu door mu génn waaye tey la dimanche di mil janvier 2024. ci podrom alaaji njaw ma code Diop waaye gi ay ci des danoo def benn dànk topp ci ginnaaw distance bi nag moo Diop bariwul 1550 mètres la ñuy daw. waaw 200 mètres bi gars yi xëccoo nañoo ak dundu gars yi ñëw nañ ci kaw dundu lan moo nar a am ñoom ñëpp nag ay naataango lañ ay mbooloo am ñetti at lañu kenn ku ne mën na ci raw sa morom waaye ba léegi dundu ma nekk ci kanam am na ku ñëw ci kanam moom numéro 11 bi moo ñëw ci kaw dundu mais ki nga xamante ne moo yëgul buur. yëgul buur ñëw si kaw dund moo Diop gis mama Diop sa xarit ba daw ki nga xam ne mooy dund ànd ki nga xam ne mooy Rajab bu maître maître Diagne ñoom ñaar ànd noono doon benn fas ñi ci nekk ci ginnaaw moo na Rajab ñëw na kan moo génn ci kanam yëgul buur ñëw ci kanam moom ma jéy moo ko war yëgul bu ñëw na mi ngi daw xëy yu rëy yi tas nañu nag Baye Cheikh tas nañu nag. gaa yi tas nañu Madiop Madiop gaa yi tas nañu waaye Linguère bi ñëw na. Linguère bi mi ngi troisième position. Linguère bi ñëw na. Linguère bi ngi ñëw. Madiop 200 mètres bii ma gis dana métti 200 mètres bii ma gis gaa yi dañ koy xëccoo ak yëgul buur Madiop peex. yëgul buur a ci kanam mu ko jógee écurie Al Maktoum Sidi Ndaw ko moom waaye Mamadou Dieye doomu Kéba Dieye ji moo ko Momadou Dieye doomu Keba Dieye ji moo war yëgul buur yëgul buur waay yëgul buur a ngi ci kanam yëgul buur a ngi ñëw yëgul buur mi ngi ci kanam yëgul buur a ngi ñëw. raw na bu écrit almak. raw na fas yi mën a daw fas yi mën a daw premier yëgul buur premier yëgul buur deuxième numéro 17 nekk nga xamante mooy li ngeen ko la jeey troisième numéro 6 nekk nga xamante ni mooy euh, Vandali. cinquième quatrième nekk numéro 15 bi ah njàpp waaw njàpp la noonu la course bi demee écurie Maktoum ñoom ñoo raw ci yëgul buur yëgul buur bu Ndaw transfert bu mag bi mi ngi noonu yëgul buur nga noonu Mamadou Dieng doomu Kéba yokor mi ngi naan ay ndànk mi ngi naan kaay ndànk ci xel la nee na kaay ci xel la nee na kaay wax ji <laughs> nee na kaay ci xel mi la. maa ngi taxaw nag ak. les amateurs mais tey dafa am lu exceptionnel lu ci am loo xam si na man dama ci kontaan parce que ñooñu ci man nañ bokk muy a Mbaye Soppe na naa ah, artiste comédien la mais yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ci wàllum course hippique mu di ci yëngatu ay at yu bari at yu bëree bëri bëri saa suñ tourné dañuy gis Ibrahima Mbaye Soppe mais tey dafa indi fas di ko dawal fas bu tudd Soppe fan su Soppe yi fas bu tudd Soppe fas waa ngi nii maa xool ni mi ni nii fas bi Soppe lu tudd day si ci plus de mais rak maa ngi lay ziar bu baax. mais fan sa nga woon mais léegi amaat léegi kii nga propriétaire nga. non pas propriétaire parce que fas yi moori moo xam. mais propriétaire nga rek. ça veut dire que fas yi tudd mais di la bu baax a baax. di la siyaar di la màggal di nuyu aussi téléspectateurs yëpp am mbégte nag trop tey. mais lu waral tey soppe. waaw xam nga loolu doon na gën a baax Salif wax ci wala moo di xam lu daa dañoo delloo peut être buum tam bay may ga maanaam. man bi ma njëkkee woo mu ne ma sama mool bi sama yow laa ko tuddee dama tur ay xéwal yu bëri mais dama fàttaliku ba may doon tur tànk di womat fas di bay fas daaneel ma sama fii dagg ma xalaat bis yi ma jooy ak jooy yi ma jooy tey ma ni jooyee moo fay waaw yàlla dogal fas aussi ñu ko mu bokk si suñu lépp waaw dafa yéeme dafa nekk loo xamante ne sama maam baykat la sama ay baykat la man ma juddu seen biir di bay ba pare yàlla dogal fas am benn sirru bu ma boole ak moom samay film samay wax samay lépp étalon def ci def ci am doole. ma xool aussi fas mu noob sànq dama ñëw dem ci fas wi soppe mu xool ma ma xool ko mu yëkkati nopp yi wax ma ko nii sama àdduna yëpp tukki ma xam ni wax na ma man dey naa ko loolu nag bu course bi jeexee laa la koy wax <laughs> li ci des dañuy bëggal suñu xol rek dañuy bëggal suñu xool rek te fas wi. beneen yoon buy ñëwaat artistes yëpp koy gunge loolu dama koy ñaan waa CNG. mais maa ngi siyaar maa ngi siyaar ñëw supporter si. waaw soppe ñëwal parce que moom suñu doomu ndey la suñu xarit la donc buñ ko duppee aw fas muy lu rëy si ñun fas yi war a daw tey kon ñun ñu teew dafay war te yàlla suñu borom dañoo boole boole ñu si théâtre mais boole ñu ci bëgg fas parce que ku xam Alaaji Mbaay borom mbaar alaaji yow sama mbokk ah, yow yow yow. alaaji Mbaye ak Cheikh Mbaye sama maam ñu doon ànd di. yow sama cousin direct nga parce que nijaay Mbaye peex moo jox sama yaay ay sagari njaam man aji borsaratu ajaratu borsa Mbaye mooy sama yaay. sama mbokk ajaratu borsa Mbaye ak alaaji Mbaye bokk ndey ak Baye. donc bu ñu teewee ci course fas wàcc nañu. mais ki mar Kébémer dëkk. Kébémer aaw la dëkk. di sama pap Samba Aw di nit ku baax. nekk propriétaire ana fas yi. waaw mais sama rak ñi ngi liggéey suñu ruq di waajal rek ñu ngi suñu ruq di liggéey di ñaan yàlla incha allahu rek ñëw dawal bu soobee yàlla. nga gënaat dina jóge Kébémer ñëw léegi. ci kàttanu yàlla. incha daan defee suñu góor gi Maysa Adam Mbaye di ko defee noonu lañ ko bëgg a indee waat ci kàttanu yàlla. non kontaan rek kontaan xam nga man maa ngi doog a ñëw def sama rentrée maa ngi doog a ñëw si course bi ci quatrième journée bi yàlla def ma ñëw premier course sama fas raw donc dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax xam ne hasard amul quoi. noonu a li ma gis léegi ci xale Sénégal benn xale tëddatul nelaw ba yàndoo xam ngeen ni maak yéen a nuroo ña fee rek nu gëm góorgóorlu leen kontaan naa ñi yor Sénégal góorgóorlu leen kontaan naa kaay jug nañu jug nañu jug nañu jug nañu am na fas yoo xam si ne bàyyi na fa ñoo ñooy nekk poulet de deux ans yi mooy mooy am ñaari at ñu ngi wàllu ci distance su def ñu mel nag mais rawoon tamit ñaaw na nañu def ndànk bu ñu gaañante bu ñu gaañante bàyyi seex. Mojo plus de deux ans yi génn nañu ki ñu dàq mooy njëkk si ñoom moom nag mooy favori bi ndax moo leen mujjee raw Mojo waaye raj raj loo bi Mojo raj raj loo bi miti na lool ci deux ans yi ndax du indi problème Mojo peex waaye njëkk si ñoor ànd naa ki nga xam ni mooy numéro 4 bi di Uma Gueye doon benn njëkk junior tey gaay bañ nañ de njëkk junior njëkk junior dëgg na de mais adduna mi adduna mi adduna mi baaxul daal njëkk junior adduna njëkk junior adduna moo nekk adduna ah, moo position deuxième position njëkk moo nekk njëkk junior nag moo nekk favori bi ndaxte moo raw dimanche bi ñu génn yaakaar naa ba leen ñu génn moo leen rawoon waaye tey jii ak dina ko lañ dem ak dina ko lañ tukki. mais njëkk bàyyiwul nee na àdduna du ma la may foo yekkee sak nag xaw ma ba xam nàkk gi nag àdduna ko yekkam du ko yekk nag waaye njëkk nee na ko doo yekk nag. àdduna àdduna ngi ñëw àdduna ngi ñëw àdduna ngi ñëw adduna ngi ñëw adduna ngi ñëw premier adduna bu Alassane Ndiaye premier numéro 3 adduna bu Alassane Ndiaye deuxième numéro 8 nekk ki nga xamante ni numéro 8 moo nekk deuxième njëkk njëkk junior ak ki nga xamante ni mooy Thion Bala Thion Bala ko bu uh, Mbaye Diène Mbaye Mbaye Diène Mbaye moo ko moom digganteem ak waa Kër Bala ko ñëpp xam ko. moom la coon sekk waan way réy wa mi ngi noonu ah àdduna raw na na mais njëkk njëkk mu naqare la raw tey tey mu ñëw rek ñëw sa kaw nga ñu ko àcce nañ tam booy bi na ko boo jógee rek door ko mu génn nga remele booy baa ngi nii yamar métti woon na trop ndax dimanche passé dañoo engagé foofu ba dernier moment jar dugg ñu muñ doy ko tey ñu engagé àdduna billaay fierté la àdduna tur bi ma ko tuddee nii maa ko jëlee fas professeur Sakhir Thiam àdduna bu njëkk ba mais encore félicitations waa Thiès. merci waaw bilaay. yàgg ak njabootu course. waaw lan ngay wax tey ci ànd bu yàgg boobu. waaw loolu sama papa la woon muy démb ñuy ay doomam ma téye course may ànd ak samay doom ak samay frère looloo tax ma téye ko parce que sam papa dafa am lu ma wax ni ma Karim ma ni naa mu ni ma course yi ba di am benn dërëm sax dam nga ko téyel loolu tax ma téye ko ànd ak samay rak ak samay doom. bi sa papa daan tëgg course yi yàgg daan doon nga ànd moom di ñëw ci course yi. waaw waaw waaw boobu boobu dama tuut tànk dama daan tëgg ndeysaan boobu dama daan tëgg boobu Ibrahima Samba fi nekk ak Amath Samboñ ak Basirou Ndiaye Mbaye Atta loolu la waaye nag sama rakk waaye nii. kon li daal ci. waaw loolu na loolu yàgg nag moom Mbab moom Mbabor ñoo ànd moom Mbabor ñoo ci course moom Mbabor ñoo ànd jug nañu ñoo ñoo nekk groupe 3 groupe 3 bi ñoo jug nañu war a daw ci distance su 2200 m ñu ngi nekk 13 battant ëttu Demba Seck Mbaye Gawane Mansour Fall Mbaye Damel Amane Sobel euh, Raxu Hélisio Dija ak ki nga xamante ni mooy sant tonton Basirou Maga Black Motor ak ki nga xamante ni mooy Assirou ñu nekk 13 partants de ci sensu 2200 mètres gaa yaa ngi noonu groupe 3 Baye Cheikh. Modiop gaa noonu groupe 3 bi jóg nañu waaye bi ñu dalee ba ba génn ki nga xam ne mooy Black Motor bu Amar Bao Junior moo génn ma Diop. maga neex maga neex. maga neex numéro 11 bi neex moo génn. maga neex moo génn waaye gars yi dañoo def benn dank xam naa dawal daal jotagul ndax 2200 mètres la ñuy daw ma Diop peex waaye def nañ 4 4 2. maga moo nekk ci kanam mi ngi leen rawee distance bu bëree bëri waaye deuxième position déjà moo fa nekk. booy ki lu ni professeur Sakhir Thiam troisième position gars def nañ fa benn tànk gars yi def nañ fa benn tànk Mansour Fall numéro 3 moo nekk moo jiite gars yi foofu ci trois ci troisième position bi Maga Neex mu ngi ci kanam. ñu ngi nii ci 200000 bu ñëwee dañuy dellu. attention Eligio dàq nañ ko mu dem attention Eligio dàq nañ ko mu dem waaye numéro 7 bi Eligio mi ngi noonu ànd ak numéro bi ki nga xam ne mooy Mansour Fall ànd nañu doon benn fas waaye Eligio nag mu jóob dàq nañ ko mu gën a avancé ci kaw mu jóob peex. dàq nañu Eligio mu ñëw ci kaw seen kaw waaye ma nga neex nekk ci seen kanam Eligio ñu ko koy dàq Eligio dàq nañ ko. waaye ba léegi Maga neex nekk ci kanam. Maga neex Mansour Fall. Mo Diop dana ko jàpp de. Mansour Fall ñëw na. Mo Diop dana ko jàpp de. Mansour Fall ñëw na. danañ ko jàpp de Mo Diop. émission daw lañ émission. Mo Diop danañ ko jàpp de. daw lañ émission. Mo Diop danañ ko jàpp. émission Maga neex. émission génn na. Mansour Fall. émission génn na. Mansour Fall génn na. Mansour Fall génn na. Mansour Fall moo génn. Mansour Fall génn na. waaw émission may ko fu mu nekkee naka. daw na émission dal na ci kaw Mansour Fall émission génn leen. émission génn. bettul kenn. émission génn. bettul kenn. émission. maam Moustapha Seye moom moo ko moom. dimanche bi ñu génn moo leen rawoon. tey jii tamit ñëwaat na ci kaw. moo tax man la bettul kenn. please hikers to honor Kisawa Kisawa deuxième position Mansour Fall édition Mansour Fall quatrième position Otu Demba Seck ñëw na at bi ñëw na at bi ñëw na première euh, Black Matar numéro 6 bi Black Matter fas bi jege nañu jege nañu de. Édition raw na. Édition bu Moustapha Chem moom moo raw dimanche bee ñu génn nit moom moo ci rawoon. maa dégg loolu yaay tal kumba joor ndeysaan dégg loolu Babacar Mar mais Mar Mar loolu nag yaa ko liggéey ci course Mar way wii yaa ko liggéey ci course Mar way wii yaa liggéey ci course bàyyi Babacar peex xaritu mbay peex waaye nag suñu xarit ñun tamit suñu xarit marqué trois quatrième course bi nekk noonu groupe euh, deux ñoom ñoo ko daw ci distance su 2200 mètres. général Mestre Sele Ndiaye jàmbaar ci Sele Yacine Ndiaye daamu jooju borom géewal Birame Sele kooku borom kokki ki defar kokki jàmbaari président Macky Sall jooju le nga xamante ni foog boo tourné seen Mestre ga gaa yi jug nañu gaa yi jug nañu jug nañu ñoo ñoo nekk ñu ngi nekk treize partants ci diggante ki nga xamante ne mooy AOC Degantor Waly May bu may sa Sele Ndiaye général bi Ngone Ndaw Miss Yacine Moulay Gallat Jamono Lat Lat Lafcat Dubayeen wax jëf Karim ak ki ne mooy laa rodo ñu ngi noonu Baye Cheikh Modiop nanu gàllaaj lañu dàq mu génn waaye troisième potion bi duma yéen la duma yéen avancé nañ ko mu dem deuxième position gàllaaj moo nekk gun tet ba léegi mojo peex gàllaaj ne nag ci kanam du nga dëgg duma yéen a fa ne deuxième position duma yéen ñoo ne deuxième position ngoone ndaw bu siri ndaw moo ñëw troisième position waaye ngoone ndaw dafa mel dañ ko xëccaat ay biir mu ñëw ci njàpp mi daa mel ni xëcc nañ ay biton Ngoye Ndao mu def njaabum golo moom Ngoye Ndao moo nekk troisième position waaye deuxième position du ma yéen may bokkale baaw moo fa nekk jàmbaar jooju yàlla ko yàlla xalaat na alaaji bokkale baaw ma sirante njàng la Fatimata Njaay bu demaat dama bam di ko segg jaayu na bàyyi Omar baaw Gion sama waay bàyyi Nabu baaw ak Sele ak Dam baaw Adama baaw sama waaji ki ñu dénkoon tool fa kala masala ajartu amin ta mu Ibrahima baaw mu Amadou baaw mu ci mujjee jëm Mbenda ndeysaan du ma yéene nga noonu bu waaye bokkale baaw waaye ki nga xamante ne moo nekk ci kanam nag moo nekk gàllaaj ba léegi moo nekk ci kanam. Mbodjop gàllaaj moo nekk ci kanam deuxième position ki nga xam ne mooy du ma yéene ngoone ndaw dañ koo bakkoon waaye numéro 5 bi avancé nañ ko muy ki nga xam ni mooy Moulay Mbodjop rawante bi metti na. lii ndax mbaa jàmm la ma jox peex. Moulay ñëw na ànd ak ñoom ñu leen acca na leen dem. na leen dem dañuy romb nit ñi Moulay ñëw na. dañ koo teel waaye ñëw na. attention. ma jox gàllaaj bàyyiwul. ba léegi gàllaaj bàyyiwul déedéet. moo nekk ci kanam bàyyiwul. waaye avancé nan xàcc bi mooy ki nga xam ni mooy. ndeysaan ndeysaan ndeysaan rawante bi métti na rawante bi métti na. waaye galaaj bañ na Moulay ñëw na Moulay ñëw na Moulay ñëw na du du ma yéen te dama doon jamono Laura avancé mu dem ci kanam dëgg la avancé mu dem xëy xidi ak ki nga xam la ilaha illallah moo jot génn na Laura da Laura raw génn na Laura ñu ngi noonu ci 200 mille bu ñëwee dañuy tekki Laawra doo ngi ñëw Laawra doo ngi ci kanam xac bu weex tàll la sam xel dem na si Diané bu Mamadou Diané Diop ndeysaan Laawra doo avancé nañ mu lay attention les juges attention mu lay attention premier numéro 5 premier numéro 5 mu lay mu lay raw na Moulay raw na Moulay moo raw premier numéro raw na Moulay bu Sidi Ndaw raw na Moulay bu bu Kidé Al Maktoum raw na Moulay moo raw numéro 5 bi Moulay. Moulay tey damaa jug rek toog di xaar quoi dama am lèvre léegi ba naa amee si laa ñëw ma avancé si la ubbee ma avancé dugg. toog jaaba rek di di yeneen fas yi loolu kese la woon. mais tey euh, nga mu nekkoon rawante bu metti ndax tey ki ni mooy sa euh, pour say poulain yoo xam ñoom bokk benn écurie ñoom ñoo doon jiitu table bi fa nga ñëw euh, ñoom ba rawante bi noonu rek la mën a rawante écurie rawante écurie la doon moo tax lépp rek da sa waa écurie loolu kese tax bu baax. bilaay gi ñëw yéen a yor seen gaal góorgóorlu leen. mais Fallou mais Fallou Fallou Fallou fay naa am nañ ay gan. waaw am nañ ay gan moom mooy loolu. waa kër professeur Sakhi Thiam ñëw nañu. Hmm? waaw kàlla meilleur gañ rek. yéen a maa war ah, tawfeex. tawfeex ngay war. non beneen bi war. a war sax. kan ngay war. Abdourahim. Fall Abdourahim a tawfeex. non Abdourahim laa war. daaw ci moom mi ngi noonu Babacar Mar Fallou Piccum Ray Gaynde mi ngi noonu nekk jockey boo xam si ne macha allah moom euh, écurie Lamb Fall marqué na fa empreinte am et puis marqué na empreinte am fii ci euh, mboolem turfis yi ñëpp ko ràññee ñëpp ko xam Fallou ngir xañaram xaleñam ak nu mu mën a rawante moom Fallou Piccum Ray Gaynde nekk xale boo xam si ne macha allah am na talent te it am nañ ci moom yaakaar waaye tey daal rawante mu neex a neex ndaxte waa Kër Saxir Thiam ñëw tey ak doole. dañoo ñëw ak ki nga xamante ni mooy laaw dañoo ñëw ki nga xamante ni mooy adjudant dañoo ñëw ki nga xamante ni mooy Ndeye Fama Der ak ki nga xamante Moubarak tamit nekk fas boo xam si ne macha allah ndam lii nekk fas boo xam ne macha allah Linguère Maguette macha allah Abdourahim ah boo Omar Ba junior moom la faal di war Lat Fatim tamit nekk fas boo xam fasu kanam la waaye tawfeex moo leen mu jaraw ci ñaari course yi ñu génn waaye tamit attention tey ki nga xamante ni mooy Maga Diop ak adjudant tey daal naaru góor yi naaru góor yi nar neex lay am léegi-léegi ci kanam teg seen baaraam foofu ma ñëw léegi-léegi ci naaru yi waaw góore yéen man bég naa ma ne lu lëndëm te yoon bu leen ko dara jaral surtout racial yaatu na dernier course bi moo nekk bi lank na naaru góor ñoo koy daw Baye Cheikh Mbaye ci distance su 2200 mètres ñi ngi rang dix partant lañu kenn ku ne mën nga raw sa morom waaye taw feex nag moo nekk Elimane ji tey moo nekk favori bi moom taw feex moo leen mujj a raw ñaari yoon. gaa yi lañ gaa yi jug nañu naar koy jug nañu ci diggante ki nga xamante ne mooy Mago Diop adjudant Law Ndeye Fama Der Moubarak Ndamli Maguette Diop mag Linguère Linguère ak ki nga xamante ne mooy Abdourahim Lat Fatim ak ki nga xamante ne mooy Tawfeex laaw génn na laaw génn na waaye Lat Fatim topp na ko laaw génn na mais Lat Fatim nee na ko fii fépp doo fi toog la amoon bee passé moo amaat tey laaw a xëy génn ñu dóor Lat Fatim mu fekk ji ko jublu mooy laaw wërta nooyi ndax bu nooyee mën naa def surprise ci biir course bi ma joob peex moo tax laaw Lat Fatim ñoom ñaar ànd nañu tukki Lat Fatim ñëw ci kawam Lat Fatim ñëw ci ñoom ñaar nekk nañu benn fas laaw Lat Fatim laaw génn Lat Fatim génn na ko Lat Fatim génn na ko Lat Fatim génn na ko laaw Lat Fatim adjudant moo nekk troisième position adjudant bu siini ndaw écrit almaktum dañ ko dàq mu ñëw dàq nañ tawfeex mu dem toogi troisième position mu jóob tey dawal bi calcul la mu jóob feex tey dawal bi tactile la tawfeex teel naa ñëw tawfeex ñëw na troisième position ten nekk faak adjudant nekk na faak adjudant gars yi def nañu benn dank ci ginnaawam waaye laaw ak ki nga xamante ni mooy la Fatim laaw ñëwaat na. laaw ñëwaat na ci kawam. Mo Diop ki nga xam ne mooy écrit écrit professeur Sakhi Thiam dañoo toog di déglu waaye écrit Lamba Faar ñi ngi escalier ndax la Fatim dem na Tawfekh deuxième position na ko troisième position na ko Abdourahim toog di déglu Mo Diop peex. Ndeysaan Moubarak ñëw na Moubarak a ngi cinquième position. Moubarak mi ngi kat cinquième position waaye Lat Fatim a ngi fa laay laaw laaw na Lat Fatim gars yi ñëw nañu gars yi ñëw nañu attention la ilaha illallah lii mbaa jàmm la moo joob calcul bee bari calcul mu bari moo joob Moubarak dañ ko dàq mu dem Tawfeex ni ko man ak yow dama lay sàmm ba keroog yàlla di dogal li muy dogal Tawfeex génn ki nga xam ne mooy Moubarak wuti ji laaw mais laaw ndax distance bi mu leen jox day na moo peex laaw jox na leen distance bu rëy jox na leen distance bu bëri mais dàq nañ tawfeex dàq nañ tawfeex dàq nañ dam ni dàq nañ Moubarak attention Moubarak attention Moubarak tawfeex Moubarak ñu ne troisième position. tawfeex li muy daw day fekk di laaw te dina ko jàpp tawfeex li daw gis ko Modou. mais tawfeex mi macha allah. lii jàpp na aywaay tawfeex mi. lii mbaa jàpp na tawfeex jàpp na laaw. day seetal deram. Tawfekh jàpp na laaw. day seetal deram. Tawfekh jàpp na laaw. day seetal deram. Tawfekh jàpp na laaw. grand prix chef de l'État day seetal deram. Tawfekh jàpp na laaw mais am na am na ku ñëw ci kaw Tawfekh. am na ku ñëw ci kaw Tawfekh Ndeye Fama Der Ndeye Fama Der ñëw na ci kaw Tawfekh Ndeye Fama Der génn Ndeye Fama Der moo génn ci kanam Ndeye Fama Der Tawfekh Ndeye Fama Der Tawfekh Ndeye Fama Der Tawfekh Ndeye Fama Der Tawfekh Ndeye Fama Der Tawfekh Ndeye Fama Der Tawfekh première Ndeye Famara deuxième Tawfekh troisième numéro 3 Law quatrième numéro 5 nekk ki nga xamante ni mooy Moubarak dañ ko signé benn benn benn bëñ la. ñim àndal benn benn la ñim àndal ñëwul. benn bëñ la benn bëñ la benn daw na bay bëgg dee nee ko ca benn bëñ la mais daw na bay bëgg dee ndeysaan Tawfekh gàcce ngalaama tawfeex gàcce ngalaama tawfeex ndey faama deer raw na faama deer bu yebar deer ndey faama deer doomu Habib bi Louga loola étalon bi Mamour Diallo ko joxoon Mamour Diallo doomu Louga loo bi moo jur faama deer mi Habib bi ndeysaan ndey faama deer raw na ndeysaan ndey faama deer raw na moo nekk numéro 4 faama deer mi ngi noonu raw mais gàcce ngalaama tawfeex gàcce ngalaama tawfeex ndeysaan mi ngi noonu Babacar Ma gis na xale yi ñu ngi may bëgg leen di tàggoo kenn ku ne gis na quatrième journée bi neex na macha allah rawatina ko sunaaru góor yi neex na am na ambiance te loolu nag lañ soxla ci course loolu lañ commencé gis ci course yi kon mbokk yi fii laa leen tàggoo di leen jox dig daje ba beneen mardi ak seen mbokk seen xam ma jom bay peex jërë ngeen jëf mbokk